au voyage. mais c'est-à-dire dans la liste. on a été très clair les 52 yi ñu lim man bokk naa si. le ah, président waroo waroo. président waroo waroo. il a été. mais waroo mais c'était absent. léegi absence nga bëgg nga bëgg ma justifier ko moom laa justifier léegi. ok le président a appelé deux personnes. ok boo dem boobu. donc donc Djibril Wade waaw wax na deux fois. Augustin. Mhm. Matar Ba. oui Augustin. Mhm. Ablaye Sow après ñu doon woo Cheikh Seck. ok mais man on a prononcé mon nom deux fois nekkuma fa léegi nag loolu moo tax nekkuma fa loolu c'est la question que tu as posée dama ñëw ñu ko jox dafa def erreur dañ ko jaawalee sa lii ak lii ma ne ko a discuté entre man ak moom fekk man dem naa sama yoon bu yàgg donc loolu c'est kenn nekku ci d'accord ça n'a rien à voir avec cette histoire de prime là dont on pose aujourd'hui loolu nag moom ñu ngi koy débattre aujourd'hui au comité exécutif de mardi mais mais mais yow ñi ñi nekk ci 52. Hmm. liste 52 bi ñooñu ñoo am prime bi aussi. waaw prime bi am naa ko. prime du président. prime bi am naa ko ma ma wax la tey sama prime nan laa ko def ma wax ko. Hmm. dañ ma installé comme maire mu jël 25 millions yi. dix yi ma may ko sama femme de commune de Biscuiterie sama sama commune de Biscuiterie yeneen dix yi ma may ko NGB yeneen cinq yi ma may ko daara yi. <laughs> c'est très clair tey cette décision te été alors cette prime peut-être euh, <laughs> prime bi am na euh, ñu nekkoon ci biir. Euh, fédération bi bëggoon ci bëggoon ci ci am parce que on a on a entendu quand même j'ai suivi tey ji benn benn reportage par rapport à ça euh, comment comprendre cette question euh, président Lamine Gueye ah, déjà la question qui est membre du comité exécutif qui est vice mais en fait man benn benn nga def remarque oui bien sûr il a deux quand on déjà des primes euh, de de cinquante millions yow yaa ngi doon wax ne que déjà c'était trop petit pour peut-être lion yi ils auraient pu ah, avoir ah, ça, euh, c'est ma conviction personnelle loolu moom loolu mooy man pour man le plaisir que ces lions là ont procuré à au peuple pour man jar na lu ëpp mm. parce que parce que on a parlé du Sénégal partout dans le monde loolu amul prix mm-hmm. loolu amul prix donc loolu appréciation personnelle mm-hmm. mais je pense que li am solo mooy on a entendu des voix mm-hmm. yoo xam ne dañoo bokk biir fédération Oui. Mais il faut Adam, oui, Adam Mandour, qui est de Fatigue. Euh, il a décrié la situation. Aujourd'hui, Tay, Wakaolak, nous avons élevé la voix. Il y a même une conférence de presse qui est programmée demain à mm-hmm. Kaolak, au siège de l'AS Salou, pour fustiger le fait que Kossodiane, qui est aussi vice-président, n'a pas mm-hmm. été retenu dans la dans la délégation bi alors que il il était il était à il a fait partie donc de de de l'équipe bi ànd ak euh, équipe bi. ci ci kii bi yëpp donc moom bokk ci donc c'est deux vice-présidents. est-ce qu'il faisait partie de la délégation officielle. non je je. je, je non <laughs> moom. non ça non. xam nga loolu leneen la. est euh, dafa am nu muy doxee. dafa am liste officielle. mais moom laa nekk. ma lay wax ni c'est des vice présidents la ma mais moom laa nekk di lay expliqué dama ne dafa am liste officielle. Mhm. liste officielle yi dañ xam nañ ñooñu xam nañ seen bopp mais même tey man aadama Ndour je le connais très bien grand bu ma respecté. Mhm. mais même bu ma doon moom man sama am sama point de vue du ma génn sax si journal di wax je préfère bàyyi ba après parce que fédération lu mu yàgg yàgg am nañ réunion. pour régler tous les problèmes. Mm -hmm. après ils pouvaient régler ces problèmes là foofu parce que tey c'est pas lu moment tey di génnee ay problèmes mu détail yu xaalis. Mhm. parce que fédération nu mu membre yi fa nekk comité exécutif dañuy def rey réunion bu ñu defee rey réunion ñu regle ko à l'interne bu réglé wulee après loolu doog a génn. Mhm. mooy comme ñi ngay ñëwee di wax ne. exemple tey sa point de vue la comme exemple équipe nationale li ñu leen may ñii ne bari na ñii ne tuuti na man je pense que c'est pas l'argent ce qui est plus important la personne doit voir ce qu'il doit faire pour son peuple mais bu mu xaar la la ko peuple am di defal mm-hmm. et le deuxième bi aussi mooy xaalis boo xam ne lan moo ko ëpp doole mooy médaille bi nga xam ne moom lañ leen honoré ñetteel bi mooy booy yooyu nekk foofu yëpp li ñu leen Macky Sall jox moom la ñuy gagné si par semaine. ok non li ngay wax. li ngay wax nii. Diallo je suis d'accord avec toi mais problème bi mooy. tey coo coowal xaalis kenn mënul wax ne amul am na. loolu lu am la. d'autant plus que c'est venu <laughs> mais ci ay nit yoo xam ne ay kàngam lañ ci fédération bi. ay vice-président vice-président d'une structure quand même. ñoo bi président la grande question c'est que est-ce que ñu ngi liste de départ bi c'est la grande question parce que euh, d'après liste yu ñu recevoir peut-être y y avait même pas leur nom peut-être di nga ñu di nga ñu leeralal et même euh, par rapport à ça le ministre Makhtar Ba soutenir na euh, euh carrément ne que ñoom euh, ñoom sax bokkuñu peut-être ci ci prime bi ils n'ont reçu ni prime ni terrain il a fait une déclaration ci benn ah, chaîne de télé que ça soit le ministre que et Abdoulaye Sow. su ma déggee parfois ñenn ñi naan. Mm. c'est le ministère. mais la délégation c'est pas ministère ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy si. c'est pas le ministère c'est la fédération. oui ministère dañuy ñëw envoyé ko nii mooy délégation bi nga xamante ne ne ñooy ànd ak équipe nationale. nii la ñu def délégation ñu xam ne lii la ñu ñëw envoyé ko ministre bi. Mm-hmm. donc tey problème du am problème bi am nii tey problème bu amee nii. mënuñu wax ne c'est la responsabilité du ministre c'est la responsabilité de la fédération parce que fédération ñoom ñooy wax Serigne wax na léegi lu am solo nee na est-ce que ñii di wax bokkoon nañ ci délégation officielle mhm. parce que am na a xamante ne bokk nañ ci mais d'une manière officieuse oui ñooñu nag ah, mais day am mais sëñ bi dama lay boo demee dafa am vingt huit mhm. mu am coach yi am yëpp yaa may dégg mhm. am côté médical. oui. yaa ngi dégg kinésithérapeute am intendant. médecin yaa ñi nga xam ne ñooy doon yor sécurité jour yi foofu. oui il fait partie de délégation. no xam naa loolu. li nga xam ne xam naa ko de. waaw mais. mais te te membre sécurité fédération membre sécurité bi mais c'est pas la première fois que la fédération dem ci événement bu mel nii. Ah. c'est la énième coupe d'Afrique donc le essais président wax na ko. c'est les même qui sont là depuis quelques années ñi ñuy tudd ni sax c'est les mêmes pourquoi cette année mu am coow bi am pourquoi il faut se poser la question président donne des primes oui demandez le ministère mhm. le ministère est obligé d'envoyer la liste mhm. mais dafay am une liste officielle oui parce que liste bi mënul weesu tant de personnes moom ci liste boobu ci lay basé wu léegi nag il faut s'interroger est-ce que liste bi ñi ci nekk ñëpp waroon nañ cee nekk est-ce que ñi ci nekkul di casse est-ce que waruñu jouer. mais moo tax ma ne loolu je pense que. non alors alors déjà pour la liste pour la liste. ils ont parlé. pour la liste y a y a le président. vice-président mooy les vice-présidents am DHC ministère des sports DAGE ministère des sports mu ngi nii ya ya y a Augustin moo naw toog nii Cheikh Ahmed Tidiane y a El Hadj Amadou Léopold ñoom ñoo nekk peut-être euh, Léopold Germain ci ministère waaw il est du il est du ministère moom laa doon cité léegi euh, moo tax ma ne est a rubrique mooy Cheikh Seck. Ah. on l'a pas pris parce qu'il était vice-président effectivement c'est mm. des compétitions inter des des internationaux oui. des internationaux. mais on l'a pris parce que aujourd'hui c'est lui qui est qui a les compétitions internationales. Mm. donc équipe bi ci moom la reposé équipe A bi. Mm. loolu moo tax moom mooy. adjoint il faut ñu xam ne kooku loolu moo ñoom loolu moo tax ñoom ñu ñu ne fa mais pas en tant que vice loolu problème bi nag Amadou Kane boobu la. oui. Amadou Kane boobu. waaw c'est que Amadou Kane boobu. waaw. Euh, Amadou Kane il avait en charge l'hébergement et la restauration. Amadou Amadou non seulement. il avait en charge l'hébergement et la euh, euh, restauration. moom moom moom Cheikh Seck. Hmm. ñoroon hébergement et tout ça. mais dafa nekk durant la CAN. ba pare moom moo. man nekk ma woon durant la CAN doucement rek man nekk ma woon. Euh, euh, Augustin nekk na pratiquement beaucoup de temps mais am na benn moment bu absenté parce que ñoo na voté Ablaye Sow comme man la. Mhm. Maam Adama aussi comme man la man dama doon campagne Amadou kii euh, Ablaye da campagne Augustin campagne mais Maam Adama campagne d' lépp lu fa doon réglé. 90 mhm. pour cent moo man je peux pas si problème mu mhm. mais dama la bëgg wax ne dafa am fédération nu muy doxee. Mhm. beneen bi man li ma nanguwul mooy lu munti am. Mhm. am na réunion de comité nañu régler loolu. ba pare tu aurais préféré ñu xaar ba ci réunion de comité. ba après luy doog a mais du moment boo xam ne defaguñu réunion de comité kenn xamagul lii di xew rek ku nekk war a génn. pour wax. oui Cheikh mm. Lamine Lamine daa am benn. boo ci amee information c'est important parce que les gens le disent. Mm-hmm. le garde du corps de Augustin Senghor dafa nekk ci liste bi wala nekkul ci liste bi ça aussi les gens épiloguent beaucoup. man rek j'ai pas la bonne information parce que xaw ma sax nu mu tudd mais mais mais on dit qu'il a le le garde du corps de Augustin Senghor dans la liste officielle non je le connais pas. mais le garde-corps de Lucien Senghor xam nga. tu le connais non je donne un exemple. non man du ma wax lu ma war xam nga mun na nekk si élément bii bi je donne un exemple. tout ça ça dit euh, man am na yoo xam ne du ma si sori bu ma ko maîtriser wulee mais li ma la mun a wax foofu mooy liste bi nga xam ne mooy dem. fédération xam na list bi nga xam ne mooy dem parce que c'est la même chose ñun bi ñëwee en Bicci Soko. d'accord. bi ñu président Macky Sall sama. moi je crois que suñ ko qualifié. Mhm. du am problème cest à bu ñu qualifié ne tey bu ñu dem compétition dans chaque type de sport ñii nga xamante ne am ñooy dem. ils ont droit à ça. ça à ça comme récompense. Mhm. de ce fait déjà à yow xam nga am. mais quand le président bu ñu bàyyi à la fin président ñëw ñu ne cinquante deux personnes parce que foofu aussi qu'on le dise ay manipulation mën foofu parce que aussi rajouter quelqu'un sur une liste ou bien dindi ko et cetera loolu loolu loolu lu yomb la. oui parce qu'on dit que les cuisiniers ak la sécurité ont été rajoutés par le président de la République pour les gratifier. moom la mais mais ce que je trouve inacceptable c'est que moi les acteurs sur le terrain qui sont

ne nii souvent tourisme dong lañ fay defi. Ah, non ça dépend bari na ci non non non xam naa li ma wax. am na ñoo xam gis nga tey heureusement que nous avons remporté. la heureusement que nous avons remporté la CAN man j'ai joué des CAN. ñu dégg naa ay ah. xam nañ comment ça xam xam tey aujourd'hui xam aujourd'hui non sëñ Saliou la responsabilité. de quoi. non mais quand, euh, quand on on est responsable ah. waaw d'accord mais même boo responsable parce que si mais mais mais président aujourd'hui euh, non d'accord mais dama non c'est-à-dire non man man. Euh, euh, écoute Serigne Saliou. oui mais il il n'a pas droit à il n'a pas droit à non non non au vice-présidents élèvent la voix. c'est qu'il y a problème. c'est que. non forcément partage bi moom partage bi moom. xam nga mën na peut être pas fait dans les règles de l'art. j'étais pas à la CAN. Ah. peut être que niveau yenn niveau d' information yegguma fa. Mhm. mais quand même un vice président de la fédération su élever la voix xam lépp li xew peut être que. <laughs> mais xalaa du ko def noonu rek. mais dem nañ fi coupe du monde déggoo coow. d' ah, mais justement loolu moo tax man ah, est ce que. l' Afrique bii passé moo taw de. moo tax man est ce que le garde du corps Augustin est dans la ou non. parce que est ce que du loolu moo tax aussi aussi vice président yi di di di. non nga ayant droit yi. ayant droit yi. il faut il faut ñu xamul. bi ñu jógee coupe bi ñu jógee coupe du monde. <laughs> c'est-à-dire Lamine may ma Lamine may ma non non non non. xaaral rek waa Lamine may ma rek. sànq ba léegi yéen a ngi rëb. non dama ko bindoon. ah da nga ko bindoon man dama ko bind jëla. parce que justement ci décoration. Mm-hmm. quelqu'un comme Crépin Diatta. qui a joué presque tous les matchs éliminatoires. oui qui a demul parce que simplement il est blessé.

parce que booy yi booy yi affaire xaalis. décoration bi yow booy li ñu leen jox yëpp boo moytu fii lañ ko bàyyi waxuma affaire xaalis. d'accord mais dans les décorations pour man crépin bi waroon nañ ko ci mën a boole parce que incha allah maa ngi koy ñaanal jàmm bu wéree. Mhm. ñëpp xam nañ ne il va réintégrer l'équipe te incha allah ñooy ànd dem coupe du monde donc quelqu'un comme ça. Mhm. war nañ ko ci mën a. d'accord oui Cheikh yaa ngi doon bëgg yeggali vas-y vite. jërëjëf. problème gouvernance ak transparence on a le projet de FIFA Gold la bi ñu demee mondial 2002 boobu rek bu ñu jaaroon ci transparence def li ñu war a def am ay infrastructures yu mot kon heure bii duñ fi nekk di wax ci lii xam nga ce qui est triste et a eu une enquête. oui waa waa daa. dafa y' mais on parle de 2002 ou on parle ce ce ce. non Diallo Diallo Diallo je demande on parle de 2002 ou on parle ce ce niveau fédération bi la ñu. waaw léegi ci say non j'ai pas dit. il parle de 2018. je parle j'ai pas dit 2000. oui waaw d'accord. je, je veux dire non non j'ai pas parlé 2002. d'accord d'accord. mais qu'est-ce que tu veux dire cher qu'est-ce que tu veux dire vas-y coupe d'Afrique bi coupe du monde bi ñu jógee. ak ah, coupe d'Afrique bi ñu jógee j'ai pas dit de 2000. qu'est-ce que tu veux dire oui je veux juste rek ñu may ma même bu dee une minute. vas-y on t'écoute xam nga dama wax ku def lu rëy am lu rëy waxuma ko Abdou Diouf moo ko wax. ñu mhm. am l'immeuble des Lions. ñun bi ñuy wax. ni mbégte bi ñu joori jox amul valeur matériel bu ñu ko mën a xayma wala bu ñu ko mën a téye du dëgg je crois que lu nit nekk acteur ñi nekk acteur sur le terrain et pour man symboliquement euh, chevalier de l'ordre national du Lion tout ce qu'on fait pour Bouna Sarr et sa femme mérité nañ dama toog ñi léegi-léegi rek am ñu ma envoyé message ne ma équipe nationale des surmiers ils ont été champions d'Afrique en septembre nan mm-hmm. la. en septembre ils ont ils sont champions d'Afrique ils ont reçu des primes de cinq millions ils sont qualifiés ñoom prime cinq millions la ñu am li ma waxoon laay delluwaat. waaw mais Talla aussi loolu aussi bokkul quoi. non waaw dinaa ñëw. xam nga tey su su émission bi surveillé. dinaa ñëw organiser un débat bi. waaw dinaa ñëw. y' a pas organisé un débat pour le. non il man je suis ma ma ma loolu aussi. waaw man man laa. le lien on a besoin de lien c'est le lien aujourd'hui avec j'ai souffert pour écouter tout le monde. waaw ah, d'accord oh, dis-nous tey jii laa laaj. qu'est-ce que tu veux dire. je veux dire que c'est un tom-tom fédéral. parce que li ñu waxul nañ ko wax. lan. ñii bi ñuy wax prime. barki démb à la rajo Kaxam laa di dama ne man su ma yoroon cent mille milliards dama koy jox les joueurs. j'ai pas dit que. ñi bokk ci délégation officielle bi amuñu droit di ci am Saliou a raison mënuñu bokk ci délégation officielle après ñu traité leen au même titre